ah dama ni bisimila ku doon laajte faali ngoye ngi nii seen produit naturel xarañ 100 pour cent bio yegg si na jaaxle jeex na de produit la bu nga xamante ni ñu ngi koy defaree a base de plante teg si dama ni la amul benn effet secondaire xarañ rek ci yokku kattan ak cawarte éy xarañ benn jeeg meretu fi jëkkëram kon yow mi am jafe-jafe se néegu sëy wooteel kaaw ci numéro yi 70 669 69 29 walla boog 77 317 03 41 ak xarañ ñëpp ay xarañ jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi amaan mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk euh, kon ñu ngi jàkkaarloo ak suñu grand suñu xarit euh, Jimbori Jimbori nag bu ñu ko waxee ci réew mi nekkul koo xam ne dañ koy présenté macha allah ci xarañteefam waaye rek chronique yu am solo yi nga xamante ne saa su nekk rek mi ngi koy def ci tolluwaay réew mi ba tax na tey jotaay la ñuy am ak moom fas yéene waxtaane li nga xamante ne moom moo xew ci réew mi waaye balaa loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk internet nga xamante dañoo ñoo ñuy seetaan su ko defee ñu wéyal suñu waxtaan. ñu ngi lay nuyu waaw maa lay fay jaara maa lay nuyu bu baax. Mhm. Euh, di nuyu sama waa ji Fallou. Salim ma koy nuyu bu bu baax Medina TV. Mhm. di nuyu Samba Samba mi nga xam ne suma xarit la sam booy la daal dama yàgg ak moom torop te boobu ñëw ma sax comme demee nii daal wax dëgg yàlla mu jàmbaare. bu dama daan jouer théâtre sax sonal ko poñe ko mu ñëw jouer ma ko te moom du jouer kat dama ko daan sonal trop moom Samba Samba Sow wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla euh, di wax ni fi ngeen ma fekk ni mooy wan sob mm-hmm. met met amet moom ko mm-hmm. nekk si caaray azir nekk suma xarit moom tamit xam ko bu yàgg mm-hmm. boobu nekkuma yii quoi wax dëgg yàlla di nuyu suma grand Abdou Aziz Sila aw mbuub Camara Mbay xam nga euh, euh, naka kii soxna May Jaxate ma koy nuyu sama jigéen xam nga Euh, alimatu koria maa ngi nuyu ñëpp ami njaay bàyyi ma kenn daal may nuyu ñëpp daal suma jigéen ñooñu mm. xam nga di leen nuyu yéen tamit di nuyu sénégalais yëpp di fi ñaan jàmm ak salaam daal am na solo ah, comme ni nga ko waxee one shop ñu ngi leen di nuyu euh, ñoom ñoo ñu accueillir fii dinañ ñëw ak ñoom ñoom ci cëppaandaw gi daal di joxe adresse bi ak euh, ñi nga xamante ne nit ñi mën nañ ko def pour jokkook ñoom waaye rek euh, comme ni ñu ko waxee waxtaan la ñuy amal mais dañ koy door tey ak actualité bokk na ci li nga xamante ne rek moom mooy information yi nga xamante ne génn na ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jegeñaale Wally Ballago Seck génne génnee ko hmm. daal di wax rek nekkoon kon jamono yi dafa nekk ci dakkal wala ci fin li nga xamante ne moom mooy carrière waaw xam nga tey suñ ñëwee ñu ne Wally Seck dafa bëgg a bàyyi way du noon yow du gëm nga ko. Mm-hmm. Hmm? gëm nga ko. gëm naa ko. waa léegi gëm nga ko léegi Wally Seck day bàyyi woy Wally Seck bu bu waroon bàyyi woy lan moo koy empêcher ba muy war a bàyyi moom Wally amul dara lu ko soke ba moom mu bàyyi woy amut bu fekkee yaayam ñu ñëpp metti nañu yàlla moo ko def te yàlla kenn mënulu ko dara du dëgg kon léegi ba pare bu ñu nee Wally Seck day bàyyi woy kan moo ko wax kan bokk na ci vidéo yi nga xamante ne gis nañ ko benn bi Omaro moo ko def gis nañ tamit kenn di jege ñaaleem ci moom Mbaye si Ndiaye euh, mu xam le nekkoon jamono yi Wally xel mi way nekkatu ci am na concert boo xam ne da koy amal yaakaar na ne moom mooy dernier concert am nga xamante ne moom la war a tëgg su ci jógee dafa jël décision arrêté li nga xamante ne mooy woy mais ci mhm. biir vidéo bi mi nga xam ne ne xëy na ñoom ñi nga xam ne ñooy ay jegeñaaleem duñ ko ci bàyyi parce que ñi ngi naxtaan moom xam nga tey benn affaire xam nga Omaro day showbiz quoi euh, kii tamit naka la tudduti mboy si tamit day showbiz rek tey jii su fekkoon ne Wally Seck dafa am dara lu xam ne daf koy def ñee nag dañuy def rek parce que aar kër bukki la ñàkkul coow boo nekkee ci aar te duñ coow sa tur ak duñu wax si waw bu yeboo nga dem tëddi mais tey jii xoola dafa am ay affaires yoo xam ne su fekkoon ne day am ci faramaareen day am ci groupe bi noo su ko njaga euro waxee ak euh, Youssou Dieng loolu moom lu sérieux la mais tey xam nga mbay si moom day foog yéen lu ëpp Omaro tamit xam nga gisuloo tey day joxe ay bakkan suba mu maye ay terrain kon léegi ndax waxu Omaro yéen war ngeen si mun jàpp ba pare waal sek bu doon am dara lu ko nakari si musique Wally du am dara lu ko nakari si musique ma pour ma wax leen ko Ramdan Thione Seck daf ko yàgg a joob lu nekk mu mu jàpp liggéey bi nag liggéey ko ba am fu mu yem Wally war a yeggale kon Wally defe naa ni moom sax de euh, bu tey bu Wally bañ bàyyi woon way suñuy bañ dinañu ree te waali du nangu mukk suñuy bañ reeñu kon Ramadaan nekkul loo xam ne Ramadaan Thione Seck daf ko def pour mu am continuité du dëgg patrimoine waaw parce que tey su fekkoon ne waali wayul defe naa Thione li mu lebal aar dinañ am ku ñëw wayal ñu faf yàlla nag yàlla ne ko lu baax li nga doon def tey dama la koy fay sa doom laay indi ba pare yéen am na loo leen comprendre gis nga bu fekkee nit dafa xool ci Ramadaan nit dafa am coow ba coow boobu moo war a soke waali ba waali bàyyi way coon Seck dem na Europe orchestre lëmm bàyyi coon sekk dong ñibbisi est-ce que xam nga loolu ba pare Thione Seck lu mu dund ci aar waali sekk du ko fa xaar parce que waal du leen ko may loolu moom dafa ma leer comme ça parce que waali moom am na loo xam ne du ko jël am na lu Thione di jël loo xam ni waal du ko jël lu leer laa leen wax am na looy def coon mu muñ ko doo ko defee waali vraiment du la ci bàyyi parce que coon dafa am fu mu tolloon te tamit musique bi grand la ci ku présenté Youssou Ndour ci seen doo ko ndaw mais waali dafa nekk xale xale la xam nga kon am na loo xam ni xale deretam da koy jege am na loo xam ni ñoo ko ko def wax dëgg yàlla li coon doon maye daal waali du ko maye su fekkee ne Omaro dafa génn wax leen loolu loolu day sóobis rek Wally Seck moom pour wax la ne Ramadane si boppam su Wally bàyyi woon Ramadane mooy na ñëw si Wally na ko koo may bàyyeel. Wally Seck su bàyyi woon nii tëb ne leen bàyyi naa Ramadane mooy ñëw si Wally Seck na ko kan nga may bàyyeel ba pare. Ramadane benn affaire la boo xam ne am na yu bëri yoo xam ne du ma toog fii ma leen di wax lii wax lii kon nettali xuloo xuloo la du dëgg mm. mais tey euh, ñun ñii. dañ daan nekk booy fan si coon uh, sekk gis coon temps boobu ñun mënuñu si woon dara ay booy lañ danaan taf ay affiche affiche yi bu ko tafee ba pare ay nit tàppi ko ba pare yóbbu ko duñ gis affiche yi daf ñu daan meti mais temps boobu ñun a amuñu comme nii mun ko faj léegi nag bu waali ñëwee di way moo tax am na yoo xam ne duñ bàyyi nit di ko ko def waxuñu nag dañuy topp pour muy wax dara loo xam ne def jaaduwul ñu si ànd ak moom déedéet mais lu jaaduwul lañuy bañ nit ñëw def ko ko comme ni coon xam nga imaginel nit taf ay affiche nga ñëw dajji affiche yi quoi toppaat ci dajji ko yëfu sabotage yooyu ñu daan def coon coon bu ñëwee war a tëgg fenn ay nit ñëw ñu suuxlu ñu ko moom pour ñeneen di tëgg su dat bi jotee ñu ne ko noo bàyyil doo fi tëgg pour keneen fees la loolu moo ko dugal ci jënd penc mi yooyu waal du ko xaar wax leen rek lu ma la nettali nii waal du ko xaar wax leen rek wax dëgg fa yàlla Omaro nag dafa nekk ko xam ne dafa mën showbiz li muy wax moom la engagé parce que Omar day fon yi rek joxe na fi ay bakkan maye fi ay terrain yaa ngi dégg def fi lu nekk loolu moom la concerné mais orchestre Faramareen nag dafa am ko xam ne bu fa duggee loolu nag vraiment il faut nga dem si Ndiago oro wala nga dem si Youssou Dieng waaw wax dëgg yàlla dañuy wax rek waaw ñun ñi ñëpp mun nañ génn di wax mais li ñu war a wax nag wax dëgg yàlla Youssou moo koy wax wala Ndiaga wax ko. waaye euh, am na solo leeral yi nga xam ne indi na ko indi nga ko ci. mais mhm. tey Omaro moment bi mu ko waxee. Mhm. peut-être dina tax ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégale yi duñ ko mën a weddi parce que gis nañ relation bi nga xamante ne moo amoon ci diggante Wally ak maman hmm. mu ñàkk waajuram ñàkk magam ñàkk papaam successivement ci diire bu gàtt mbir yooyu tamit ndax mënu ko affecté itam ba mu jël yenn décision yi dëgg na lu ko ok waa xam nga jaaga nekkul woon di ànd ak waali àndul woon ak Wally dafa doon gunge waali mm-hmm. te ñaanam dafa nangu si Wally mooy ñun bugguñu mu dem de mais dafa ñaan yàlla dem bàyyi ko fi parce que du noonu mais nekkul moom day ànd ak waali ànd ak waali maara day taali dafa doon gunge waali gunge na ko nag mooy fexe jaaga fexe na ba waali macha allah pattul laagiwul mel na nu mu war a mel mu yar ko si yarin bu baax ñu jàngal ko moom ak coon loolu la jaaga seqoon ak waali def na ko waali nag li mu seq ak ay rakkam ak li mu seq ak ñi nga xam ni papa moom la moom la moom la leen bàyyee kooku moom moo des su fekkee dafa bàyyi moom su fekkee dafa bàyyi ah, loolu leneen la mais dama lay wax ne su doon bàyyi dafa am waali su waali balaa moo bàyyi yaa ngi dégg bu toog waxtaan wi rek yow nga sëyi fi ba am fi doom doom ji am si jëkkër xaaj na ci <laughs> parce que ay géewi géew lay jot parce que moom Raam Daan nekkul Waly Seck moo ko créé daf ko donn léegi dafa moo tax mu am public gu boppam ak public gu yaayam ak public gu coon léegi bu waxtaaneek ak ba pare balaa moo waxtaan ak public gu papaam ñun balaa waxtaan ak public gu jaaga day jël temps loolu defe naa moom du ko def wax dëgg yàlla ba pare munul nekk fii musique bi tegu ci loxoom muy bàyyi musique ci loxo waali la nekk parce que boo génnee musique Sénégal li si waali des li ci des ay teesante lay doon ay teesante parce que waali ñi ngi koy tëkkaleel yëpp amuñu album amuñu album te Waly am na album num Pape Diouf moo fi am album ñi si des amaguñ album vraiment dañuy raam mottali koo ay wax wax dëgg yàlla waaw yéen tamit ngeen jàppale leen ci wax yi rek mais musique lu ñuy liggéey la parce que musique suñ taxalikoo ñoom ñëppay ñàkk ànd moo ànd moo gën ci ñoom tey jii Sidi Diop euh, Pape Diouf ñu ànd moo gën tey imaginel ñu génne benn cassette boo xam ni Waly ak Pape Diouf ñoo ko si wayandoo Waly ak Sidi Diop ñoo si waayandoo Sidi seen rak la mais Sidi ku koy jàppale da nga koy jàppale mu góorgóorlu génnee ay album mais pas di ko jàppale ci coow di di xas leen nit xam nga Sénégal dañ lay jàppale ci xas leen xas leen la nit te loolu su la ko nit defee daf lay jëndaloo fasu yaa biir mais du la ko guble wax dëgg yàlla waaw parce que ñu bokk tee nay laxasoo buum oui yow mi nga xamante ne yàgg nga ci biir kër coon lool laay wax hmm. euh, am na relation boo xamante ne comme li wax dee mënul ñàkk parce que nekkul nag waali rek moo ñàkk yaayam ñu ci bëri ñàkk nañ fi seeni yaay ba ci man miy toog mhm. mais dafa am tey complicité boo xamante ne dañ ko doon gis ci diggante waali ak jaaga te yow mën nga ci seede dara waaw mais xam nga tey jaaga ñun ñii yëpp jaaga yàpp guddi la woon soo ko dajee si ndab da foog ni pour yow kese la quoi bi mu génnee àdduna firndeel na ko ñi taxawoon ci buntu armeel yi du yuuxu ñaata nit lañ ñooñ da leen xam waali da leen xam waal da leen sax mun a xàmmee waxal rek loolu mooy affaire bi mais jaaga euh, euh, euh, coon da ko doon gunge yaa ngi dégg après jaaga du gunge leen mais booy ni ñu war a mel mel nañ ko xam nga la moo garaaw sa jur génn àdduna ba pare yaru la ci yarin bi gën mais sa jur jóge fi yar la ci yarin bi gën kooku wàccoon na ak yow quoi ak complicité buñ mun a am musique musique la jaaga musul musique parce que tey ma wax la dara biñ koy tagg yëpp ci mbaaxam lañ ko tagg mais mus musul génn cassette musul nekk ci album yorul studio jënd ko tëggul soirée soirée yi mu doon tëgg mooy soirée yàlla mooy lu mu am jox ko jaamu yàlla yi amut foofu la foofu la quoi affaire yi bokkuñ dafa jur kii mais moom fi mu doon nekk di fa enregistré wu ak fi ñoom Wally Seck nekk wax dëgg yàlla du benn parce que moom musique sa doonu ko woon déglu loolu tamit moo si nekk. Hmm. amul lenn lu jaaga di def ba waal Seck bàyyi waay parce que Wally Seck ñu ko fi mag ñi ngi fi fuuf nekk ay musiciens amatuñ sax ndey ak baay ay mbokk sax amatuñ ko maam lañ léegi te bawuñu yaa ngi dégg kon moom lan lan moo koy waral nakari mu bàyyi. ñun ñii ñëpp suñ sañoon jaaga du dem mais jaaga yàlla mi ko moom def na lu ko neex ci moom. Wally mi fi des dañoo ñaan yàlla nag mu ay fanam gudd mu sut le mu sut ko coon. sut ko jaaga sut ko keneen ak keneen dund cent loolu lañ bugg mu agale loolu lañ bugg parce que waali commencé gul sax commencé gul sax waali commencé gul sax mm, su demee ba mbiri fi mu toll nii nii si situation bi ñu ne peut-être diir bu toog diir bu gàtt bi nga xamante ne toog na ko dafa xaw a fay moo tax ñuy créer coow pour wane ne ñi ngi fi Wally Seck du créer sax coow Wally Seck bu tëggul 10 ans moo mën ñi bu toogoon dix ans moo mën nii waxewu ma ko pour dara de yàlla moo njëkk wax ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu démb xoola xoola musique gu waali ak musique gu gaa yi waxal rek waxal xoola musique gu waali sekk ak musique gu gaa yi booy pardon waay xam nga waxal rek bokkul quoi pompiteer du moroomu new tey jii ñoom ñooy profité tëgg li ñuy tëgg gaaw balaa waalee ñëw di tëgg wax hmm. dëgg yàlla parce que ñii di dem bay fekk fi nit ñi di jaar ab mbedd ñu fay tëgg muy fees kee di di fayeeku bie nit ñi fees fa dell wax dëgg yàlla eh, eh, eh, Wally Seck amul dara lu koy fay quoi fay instant bii fay Wally Seck boo fayee Wally Seck rek fay nga musique sénégalais musique sénégal day fay parce que actuellement nii moom bëgg ak bañ moom la fi yàlla teg quoi wax dëgg yàlla su ko defee hmm. kon xam naa ne sénégalais yi itam euh, namm nañ ko bu baax a baax te itam ñu ngi koy xaar parce que bëgg nañ mu ñëwaat euh, namm nañ yi nga xamante ne mi ngi ko doon def euh, bu baax a baax a baax no soo gisee ma ne gars yi ñu tëgg li ñuy tëgg gaaw li ma gis nii muy ñëw su ñëwee du baax si ñoom de way c'est que Wally problème bi mooy day jàpp fenn ba ñoom ñëpp jàpp ci mu bàyyi foofu dem indi leneen loo xam ne bala nga cee jàpp fekk bàyyi na ko gars yi duñ ko dab xam yi ñu nekk nii ak fi se fi àddina nekk man mii sax di consommer musique gu Thione Seck mënuma cons yenn musique yi parce que vraiment niñ koy tegee nii mooy loolu quoi gars yi ay jàmbaar lañ mais ñu ndaw ndawaan nii indi coow yi nii vraiment gars yi nañ xoolaat quoi nañ joob bu baax. xam nga waaw. Mm-hmm. leeral yi am na solo macha allah nangul nañ sax ñenn ñi quoi ñu ngi liggéey mais am na ñoo xam ne liggéeyuñ seen àdduna yëpp wax la ak wër di taasu xam waaw daanaka ñenn way yenn woykat yi seen way yi munoon nañu dem rajo rek wax ko mu jeex xam nga du sax ay woy ay waxtaan la quoi wax dëgg yàlla man sax mun naa génne loolu waaw léegi léeg sax ma gis fi nit génnee loo xam ne dama naan i lii xalaatoon naa ko munoon naa dem def ko comme waa ji parce que way ñu dañuy waxtaan quoi vraiment mais quand nag ñi fi nekk ñi fi nekk itam ñi ngi prouver parce que itam ñi fi ne suñ demee bañ leen di tëqale ak ki nga xamante ne moo nekk au sommet c'est parce que ñi ngi def dara. non amul kenn ko xam ne mu ngi fii ñu koy tëkkale ak Waly Seck. ah non xaar xaar wax la xam nga Pape Diouf garaam la. du dëgg mais ñi si des ñi ngeen di wax nii kenn tëkkalewul leen ak Waly Seck dafa am ay site internet yu bëgg wii si site internet yi la concurrence te la la la concours bi nekk mais si biir musique bi concours bi neew fa. ama mu ngi mel ni man may signature rek mais làmb ja kenn bu ma fa demoon pour ñu tëgg ma duñ ma tëgg noonu la demee quoi yéen yéenay ñëw rek bëgg fii di coow noonu mais dama ni xam nga nit ki bala ngaa coow ak moom da ngay génnee ay album comme moom wala boog mais amoo album amuñu al est-ce que xam nga ñooñu amuñu album sax album amuñu ko ay singal rek single boo xam ne yow yaa may romb ma gis li ngay def ne eh, affaire bi dem non yooyu moom bu musique boo ci nekkee te bëgg ko da koy jàng bul dañ ci di jàng musique gisoo wàllu dafa yor ay facette facette bu mu leen wan ren bu dewenee mu wanaat leen beneen facette wax leen wàllu bi muy doog a door am na ñu ne woon du dem kenn gëmu ko kenn xam naa ne buñ ko teeloon gis du yegg si parce que mi xoola musique bi chaque année nu koy développer musique bi muy dem ci leneen waxa rek wax dëgg yàlla. jërëjëf euh, grand Jimbori ñu ngi lay ziar bu wér-wér li nga wax am na lenn loo xam ne ni war nañ ko see mën a yokk parce que tey soo ñëwee Medina kër Papa Thione mi ngi fa. Mhm. Euh, Zo Mbaye di ndijaay ci Wally Ballago Seck. Mhm. ku xam Baye Cheikh muy papa Papa Thione ndeysaan xam maturin mhm. yi nga xam ne moom moo yor cung bi. ñii nga xam ne dañuy foor musique muy ñoom xaadim ñi nga xam ne ay fecckat lañ muy ñoom Madi Diop ñoom ñëpp. famille lañ ci ci ci ci Wally Seck ñi ay cousin am lañ. donc tey Wally Seck garder flambeau bi nga xam ne ni mooy mooy mooy drapeau faramaren marraine bi. ban facette la war a adapté wala ban taxawaay la war a am ci li ko maanaam ci période bii nga xam ne ni moom moo des si carrière waa mais xam nga Wally Seck bu fekkoon ne mi ngi dem te tegul ci yoon bi ñu mën a wax mais mi ngi ci yoon bi xam nga nit ñi ñooy wax mais moom moo gën a xam boppam nit yi te nit yi xamuñu ko c'est que nag dafa am ñu xam ne dañoo xërërëri ci moom ba nga xam ne bu ñu déggee dara rek dañuy defa ne dëgg la mais Wally Seck jàmm salaam rek moo koy daal ba pare xam nga Wally lu ma jaaxal si moom dafa dajale mbokki yaayam ak mbokki baayam ak xariti baayam ak soppay baayam ak i soppeem yëpp téye loolu jaaxal na ma trop ku mënee noonu nit jaaxal na ma trop léeg-léeg da ngay gis foo xam ne ñii dañuy mer ñii mer ñii bàyyi ñuy def ay affaire mais kenn musul mer te ni moom moo la merloo loolu daf ma jaaxal si mbooloo yaa ngi dégg mu téye ko waali moo la gën a xam li papaam bàyyi ba pare waali moo la gën a xam li papaam dundu am na yoo xam ne du ñoo koy wax mais loolu junj la xam nga fépp foo xam ne dara war na ko fa mi ngi ko fay def xool tabaski bii paase benn musicien boo nangoo génnee trente million jënd ko ay xar ta séddale ko askan bi kan la moo tax léeg-léeg bu nit di ñëw di jaxase askan bi ak Waly Seck dafa mel ni nga jël Waly Seck di ko dóor ci kaw Waly Seck parce que Waly Seck mooy askan bi soo demee buntu këram lu mu néew néew di nga fa fekk ku tëdd yor ak ordonnance xoola man dama fa ñëw benn jigéen woo mu ne ma kaay ma expliquer ma ñëw bugguma tudd turam mu ne ma opération la amoon 3 millions nekk foofu léegi boo demee foofu sax mi ngi fa di liggéey day bale foofu kiy bale mun naa yegg foofu ko quoi kuy bale la waali dafa ñëw rek mu wax ko waali toog ak jël ko engagement faj ko ba mu wér dara metteetu ko mu ñëw wax ma ko ban musicien moo lay defal loolu kuy fanaanoo yut boo xëyee di nga wàccu ah ñi nga xam ni yow ñi la wër sax mënoo leen apporter tous ñooñu nekk foofu di la mbal mbalee yaa ngi dégg yow nga jël sa bopp natt ko foo xam ne mooy loolu est-ce que mënoo xaar dafa am benn wayu Umar Pen way boobu lu am solo la ci diggante entre Wally Seck ak ñi koy doon doon lu mais ñaan nañ yàlla tamit Wally doon am ñuy doon doon lu Wally ñee dañuy doon doon lu Wally parce que ñoom boo leen génnee ci Wally seen coow du dara daal wax dëgg yàlla du dara ñun faramaareen yëpp bu ñu àndandoo woon noppi ñooñu du ñu am lu ñu wax te ñun ñoo leen si boole de tontonte yi nii mais ci musique bi duñ fa tus ñoom buñ tëddee guddi xam nañ bu baax xàmmee nañu day bay ak pas yi ñoo la ko gën a xam mais dañuy coow nii rek xam man am na coow yoo xam ne bu dul woon yéen ngeen ñëw wax ma si wallaahi azim loolu du ma si wax parce que tamit Wally Seck respecté nañu respecté bu toll ni am na fu xam ne sañu faa dugg moom wala mu fay dugal jëmmam wala muy tëdd ba pare waali est-ce xam ngeen du nelaw xam ngeen loolu du nelaw xam ngeen loolu non parce que dafa xam li mu yanu bu nit ñi di nelaw mi ngi musique mi ngi wax mi ngi nekk ci studio bi su xëyee suba teel si lay nelaw ba 6 heures mu doog a jóg kon kooku xam na li mu yanu parce que ku bëgg man mii di chronique rek su guddi jotee du ma nelaw damay xool dëkk bi fan lañu jëm ak jukko yu ñuy def lan la ñu mën a jural ëllëg pour boo leen ñëwee ma ne leen attention nañ moytu fii fekk man maa dul nel asante maa moom mi yanu lu diis diis diis gan wax dagg yàlla am ñu yaakaar si moom par weer di ko fay li mu toog nii yëpp euh, euh, weer bi bu dee day fay gaay am na wala amut kenn mosu faa génn ne yoreel na ma am na wala amut du dëgg kon bu Wally Seck nañ ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram ñeneen ñi bu buñ ci tolloo tamit ñu ngi leen di ñaanal pour ñu dab si ko mais nañu xaar ba bokk si course bi mais coow yi yëpp. noo man du ma tudd turu kenn man du ma tudd turu kenn mais ñiy wër daal di wax noonu xam nga ay seeni nit tamit génn di wax mel ni dara lañ te duñ tus ñooñ daal man affaire daal ñooñu laay wax man du ma tudd seen tur quoi wax dëgg yàlla parce que tey soo tuddoon seen tur ni loolu rek lañ soxla ku tudd seen tur suba ñu génn di mbal mbalee loolu donc moo leen fi bàyyi. ama wax dëgg yàlla ñooñu nañ liggéey quoi jàng mi. ayca <laughs> jërëjëf euh, euh, grand Jimbori euh, dañuy dugg rek ba tey ci li nga xamante ni itam buñ koy seetlu bëri na polémique bu ñu waxee grand Jimbori wax ne am na parcours boo xamante ne jaar na fa si li nga xamante ne moom mooy théâtre gis nga série démb gis nga série tey hmm. waaye gis nga série bu bees bi nga xamante ne yëngal na réew mi hmm. yaakaar naa ne premier épisode bi moom la sumbulu bàcc li gis nga lim ci joué ci diggante ñeeño ak kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko hmm. muy indi polémique bu bëree bëree bëri sa gis-gis rek en tant que koo xam ne tey jaar nga ci milieu théâtre ba pare. waa xam nga bu dee du théâtre sumbulu dafa juum mais bu dee théâtre sumbulu juumul. d'accord nga sumbulu dafa dugg si biir personnage bi. jeu théâtre gars yi dem si biir théâtre bi luqati fa sumbulu génne ko génne ko théâtre bi xas ko mais bu doon sumbulu da kaa bàyyi ci biir théâtre bi doo ko wax dara xam nga loolu personnage la buñ ko jox. mu def ko su fekkoon ne Soumboulou day juum réalisateur bi scénariste bi ak monteur bi ñooñu tamit ci lañ parce que ñoo sumbulu moo ko wax mais. dañ ko jaarale si ay kaset dugal ko ñooñu tamit lu tax dindi wuñ ko pourtant de loolu la nit ñi di dund li nit ñi di dund loolu la def mais bu fekkee ne dañoo dem génnee ko ci théâtre bi lool kenn du ko wax mais bu dee ci biir théâtre ñun biir théâtre da ngay gis ñoo xam ne dañ suy xeex ba seen deret génn parce que dundinu doomu aadama réalité moom lañ leen di defal moom nag dañ ko jox personnage mu dugg ci ba mu ëpp léegi nag am ñi dugg ñi dugg ci biir personnage su sumbulu génne fa sumbulu ñëw teg ko génne ko ci biir théâtre bi def ko boole ko ci ñiy seetaan théâtre kat yi te seetaan bi ba xas ko ñooñu lañ baraw lijjanti ñan la mais grand euh, en tant que ki nga xam ne ni maanaam jaar na si lu nu mel mm-hmm. est-ce que nekkul aussi euh, d'accord comprendre nañ personnage bi mais dialogue bi kàddu yi est-ce que mënuñu ko woon seggat. non ma ne dialogue bi mun nañ ko defar mais nuñ ko mun a defee xawla man am naa sam benn jigéen ñeeño la dafa maye doomam man mii sax la di jaayale woon doom ji ñu jël ko may ko nit ñooñu dem nee nañu ñu xëy ne ñàkk bi ñu def kooku moo leen ko teg xoola am na fa doom benn benn bis bi ko yaayam di jëli si kaw terrasse lañ ko yóbbu fanaanal ko fa ak doomam doom ji mu jur ñoom fanaanal ko ba bëccëg taw bi taw si kawam te fii ku fi ñeeñu gënul gënoo ñeeñu wax dëgg yàlla parce que li ñuy apporter bëri na ñuy coow fii apporter wuñ ko kon kenn gënu leen booy wax nga lu réew mi boo si génnee ñooy ñooy li ciy des defe naa du bëri de wax dëgg yàlla mais ñun lan moo fi indi kii lii la kii lii la kii lii la te ñun ñëpp di jullit loolu loolu la ñu war a njëkk a lijjanti ñu ko indi ba pare tendance bi sumbulu wax na erreur bu mag mais dama ni yéen gis ngeen erreur yu ko gën a ngand te yéen waxu leen ko man loolu moo ma jaaxal. ci yéen mooy yan. gis nga ko am na ñoo xam ne nii ñu ngi fi. Mm. du duñu mus a jaxasoog yow duñ la mas a may seen doom te yow yaay dem ci ñoom ñoom duñ ñëw si yow xamuñu sa kër yaa ngi dégg di incarner loolu loolal xeebeel la te yéen doo leen ko laal quoi. yéen na ngi toog. waaw li tax affaire bi xaw a sensible tuuti parce que téléfilm la boo xam ne day refléter réalité bu ñuy dund fii si Sénégal léegi nga gis Evenprod ñëpp koy suivre. Ah. et que nekk benn benn personnage am emblématique boo xam ne nii. Ah. am na kàddu yoo xam ne su ko tëggee rek maanaam fu muy dal. peut-être day laal diggante ethnie ak ethnie peut-être looloo tax affaire bi sensible. waa mais xam nga tey demagul si ethnie de. Euh, comme xeet ak xeet demagu fa. mais coow li non waa coow waa xam nga tey euh, Soumboulou waxkat la comme man ni may waxee day juum day juum Soumboulou du yàlla du xut bu zamaan dafay juum mais Soumboulou jabaru Ablaye Diop xaas xam nga tey lu tax ngeen a baal Soumboulou xam nga ko Ablaye xaas Ablaye Diop bu ko mënee muñal Soumboulou di jouer film ñu may ko ci jëkkër ba mu tas ci yéen munoo leen ko muñal yéen bu sa jabar di jouer théâtre da ngay toog gis ko ñu may ko jëkkër muy sëy di lëngoo di fanaanandoo bokk mbaaj yow nga toog di seetaan lan moo tax nga toog di seetaan ak góor nu mu lan moo tax jëkkëram mën a seetaan film bi di ci ree waxal parce que personnage la buñ ko jox bu ko paree da koy simmi loolu la jëkkër ji jàpp léegi yéen sénégalais yi lu tax munoo leen muñal artiste bi personnage bi mu sol bu ko simmee sañu leen a wax dara lu tax. kenn du ko gis kenn du ko dégg. waaw c'est parce que xam nga tey soo xoolee téléfilm li tax mu am doole. Ah. damay ñëw si question bi. Mhm. li tax mu am doole. Mhm. mooy que ne réalité bi nga xam ne day am. Mhm. soo ko fëggee rek dafa am fu muy laal. waaw te à travers téléfilm mun nga si defar mun nga si defar ay xale wala mun nga si defar dëkk comme mun nga si jaxase dëkk. waaw waaw dëgg la mais xam nga tey. sànq wax naa la ko ne la jëkkër ji su mënee seetaan jabaram ñu may ko jëkkër beneen jëkkër bu dul moom personnage bi sénégalais bi tamit ki nekk si biir personnage bi lu tax du ko téye ni kii dafa day def lii rek mais tey bu fekkente ni daf ko simmi amul fitu wax ma ko wax laa la wax de mhm. yaa ngi dégg li ma lay wax nii lu wér-wér laa la wax jëkkër ji daal su ko mënul muñal takk biñ koy takk ci théâtre ak ñun takk yi may jabar yi ñuy may ci théâtre suñu jabar yi di ko muñ mais ñu muñal ko ko personnage bi muy sol noonu pour bu ko simmee xam may bañ man ma simmi personnage bi ñëw taxaw rek def benn communication xas nit juum na ci ñi nga xam ni mënuñoo muñal su sumbulu personnage bi juum na si ñi nga xam ne mënuñu ko muñal personnage bi mais juumul ci ñi ko mën a muñal. sénégalais bi ñuy waxtaan ba tey waxtaanu sénégalais wax naa leen mosoo leen ko dégg mosoo dégg waxtaanu sénégalais xam nga loolu. mos ko dégg. tax. ma ne ban waxtaan nga xam sénégalais yi di ko waxtaan. bëri fi ñuy sénégalais yi di waxtaanee dëgg doo ko fekkee xam nga fan la. boolu añ yi bu sukkee ci boolu añ yi la ñuy wax dëgg mais bu ñu ñëwee ci penc mi ñoom ñëpp leneen la ñuy wax parce que yéen seen dëkk bi da ngeen a def ay pàcc pàcc pàcc pàcc yëpp bokkuñu kii ni lii laa kii lii laa kii lii te maa la gën le kenn du ci xeex mais li nga yor baaxul nopp mënu ko dégg yéen nag da ngeen a seeni affaire kenn ku nekk jàppe sa bos or kee kuy nekk yor or téye moroomam përëm loolu ngeen waroon di kër lijjanti boo leen ko lijjantee dëkk bi day net ba pare moo la daal disque door dootu leen dootu leen ko gaaw a am euh, théâtre kat yi tamit pour ñu dem seen film yi di gagné ay FESPACO xaw ma naka pour ñu gagné loolu trophée yooyu du yombati parce que adduna bi fi mu yem ak fi ngeen yem nekkul benn parce que am na loo xam ne ku ko wax euh, paa yi génn yóbbu la police am na loo xam ne ku ko sol ci clip ñu yóbbu la te clip yooyu ñooy am disque d'or yi kon yéen da jafe ngeen a wayal jafe ngeen a jéewal trop. mais nag euh, duma d'accord foofu ak yow de parce que Sénégal fii dafa am ay ay ay valeur ak ay tradition yoo xamante ne dafay nekk démb tey te dafiy nekk ba suba te tamit euh, suñu suñu culture dëppoowul ak yenn façon solo yi comme ni nga koy waxee wala yenn façon jëf yi waral sax mm. des fois yenn scènes yi ko gisee sax ci série yi sax euh, dañ koy ñaxtu mais yéen boo leen muñee boo leen munee muñal ay nit toog yor ay xeesal loolu di rocc nit ñi xam nga ko <laughs> di rocc nit ñi yaa ngi dégg mu leeral la kii amu ci xam-xam te leeral la li muy diwoo jaayu leen ko yaa ngi dégg ngeen koy jënd di ko diwoo après boo leen ko ñamee mu saf suukar li mu leen ne woon day saf suukar yaa ngi dégg kon léegi yéen lu tax yéen boo leen mënee muñ lool toog di ko seetaan te indiwu leen ci benn polémique loolu seen aadala yéen seen aadala la. suñu aada mais yàgg na ci réew mi quand même. mais seen aada la. du suñu aada tool di ko langal. seen théâtre yi sax benn jigéen boo ne si meekul nga def ay mëgg ay renversé du ko nangu dañuy dugg si piscine sax ak seen ak seen geenu fas yi. ah yow di nga nangu loolu. <laughs> Hmm? Mm-hmm. xam nga ñun lu tax ñu bàyyi théâtre toog nii di xool. Mm-hmm. parce que liñ doon liñ ñu jàngal ak li yi di def du benn. kon mën nañ ne bu démb ak bu tey dafa am différence. non ñun aar la tudd aar li sa maam bàyyi. Mm-hmm. ñun suñu maam li mu fi bàyyi nekkul moom la ñii di def. théâtre yi da ngeen gis nit yi di simmeeku taat neen bañ nañ ko ba personnage dañ naan la boo amee boo bindee film ma wutal la booy bu dee. booy bu dee la ñuy wut ñun nag kuy dund di dundal lañ soxla. léegi comme ku dee la ñuy jël ko xam ne rusuta def dara mais yéen tamit bul wax ma leneen fii ay jéekatu leneen moo fi nekk mais jéekatu théâtre comme moom ma jaaga comme ñoom Mansour Mbaye xam nga ñoom Mansour Mbaye ñoom layti xam nga ñoom soppe xam nga ñoom Pape Demba Ndiaye ñoom Kader Sipinimi ñoom Aline Badara ñooñu gisatoo leen sax ñu wàcc si game bi suñu wàccee rek dañoo ñàkk pexe parce que ñooñu li ñuy théâtre wala Ndumbe Dieng bu géejawaay mos nañ ko fay ne ko yëkkatil sa kii ba fii ay millions mu bañ tey moom ngeen gën a troxal doo leen ko jël sax doo leen ko promote doo leen wax waxam da ngeen ko sànni fële est-ce dem ba mu yàgg ne su ma yëgoon jël xaalis bi. non duñ ko sànni kooku xam nga mi ngi doon défendre mi ngi doon défendre culture maamam. duñ ko sànni grand waaw effectivement peut-être waa accessibilité. <coughs> booy nu ma jee boo demee géejawaay mi ngi fa. <coughs> <coughs> Ndumbe Njaay boo demee fee di nga ko am waa kees no waaw ok dama la wax rek ne la ñooñu Ndumbe Njaay ak Ndumbe Njaay dañoo def lu rëy si théâtre parce que dañ leen bëgg a simmeekuloo te booba toll nañ ci simmeeku mun rafet ñu lànk nit ñu simmeeku bu ku simmeeku dañ ko war a dañoo war a jël photo Ndumbe wala photo Ndumbe Njaay taf ko ne ko jëlal exemple ci kii xoole ñoom Baye Cheikh Seck Baye Cheikh bu théâtre amoon xut bu Baye Cheikh actuellement nii mooy xut bu dafa mën Baye dafa aay ñun ñii di joué xam nañ ni Baye Cheikh ndaanaan la man Baye Cheikh daf may daaneel comme ça mais dafa laa wax ne la am na foo xam ne réew mi pour ngeen régler ko il faut ngeen jël ñu bëri parce que yéen li ngeen li xaraam dëgg da ngeen koy gis léeg-léeg nit day ñëw nekk apparenté yàlla ne la ci yàlla la jóge doo leen si ñimee wax yéen da ngeen di régler yooyu ba pare régler sumbalu sumbalu lu ndaw la comme ça quoi man de man ci loolu ñoo ñu di fanaanoog yàlla ñëw moo tax may jéggal sumbalu bu dañu waroon maase régler ñooñu loo gën a rëy yow tamit. en plus ñu ba ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a di jël. personnage bi nga xamante ne moo joué di Ami Sall maanaam tur bi tur di Marème Sall tur bi mu fa utilisé maanaam mën nañ ne wax ji kon du sumbulu moo ko wax Marème Sall moom moo ko wax parce que si biir série bi Marème la ci tudd te ji bu ñu identifié ne que kii Marème la du sumbulu bu paree ci série bi sumbulu lay doon erreur mën na. waaw mais loolu laa la wax ne mënuñu ko muñal personnage mhm. dañ ko ko mënut a muñal rek. loolu la waa sénégalais xam nga tamit wax dëgg yàlla man moom dë li sama xalaat rek laay wax xay na nag mun bañ a doon dëgg mais li ma njort te xalaat ko daal mbulu personnage bi ni ko jëkkëram mënee muñal ñu koy takk gure séddale guro yi sabar yay dal mu am fa doom yéen boo leen ko ko muñalee coow du jëpp am la leeral yooyu balaa ñuy jeexal euh, ñu ngi la tudd léegi ngay wax jaaykatu saabu boobu borom diw bu am suukar bi euh, coow li sa digganteeg moom fan yi bëri woon na gis nañ nga toog di wax moom it mu toog di wax lan mooy problème bi non moom kay mooy génn naan ma di nga dégg daali tey ak daali démb ak daali masaaya man loolu laa bëgg ku ma ko tekkil mhm. comme ça quoi man comprendre ma daali démb daali tey ay xaw ma am na beneen wax bu muy wax wax yooyu c'est-à-dire comprendre ni la wax xam nga man su ma doon coow dëgg coog nit daf may neex. ndax lan. coog nit ku nite laa wax de. léegi da bëgg a wax ne Mame Ndiaye Savon du nit. noo seet leen defa kaanam rek. ak ah, man eh, dama lay laaj. noo ndax yëfu nit lay def loolu laa la laaj. ah mais da nga ko tooñ mu taxaw ci laay ba moom it wax mooy lan comme li ngeen wax laa wax kas mm-hmm. rajab kat sëriñ bu fekkante ne man dama koy def. damay jiital samay nag dem si sama sëriñ dolli ko ko ba pare ne ko ñii samay xarit lañ mm-hmm. nit da war a influencer ay nit pour ñu dem ci lislaam mais woote parce que Serigne Touba sax nga baal ma jarul woon ma koy tudd. xam nga nu mu tëggee Touba dafa toog ku ñëw jox ko ku ñàkk boo ñëwee mu jox la ñëpp dagg ñëw fekk si sëñ bi. comme ça mais dama ni kas rajab soo ko dee def est-ce que jaadul nga jël li nga am. nag yéeg lépp yóbbul ko sa sëriñ defee ko fa bu jeexee nga ñëw am na kenn faalu sekk da koy def day teg ay paas jiital ay nagam yóbbu def ko kas rajab ñibbisiwaat mais nga toog fu xam ne sa kër la indi fa ñoo xam ne xamuñu góor la xamuñu jigéen lañ ñu naan mbaxana kii laa defal teg naa ñaari cin mais yow tudd bi ngay tudd sañ Fallou yaa ngi ñuy tooñ sëñ Fallou ñun ñëpp ko bokk parce que sëñ Fallou ñun ñëpp la liggéeyal sëriñ Touba ñun ñëpp la demaloon géej amul kenn ku xam ne sëñ bi demalu la géej parce que bu ko neexoon du dem mënoon na libeere jam ñi jàpp njàmbaram kenn du ko tuuse comme ça li ko may mu dem ba ñëw kooku moo waral ñu ormal ko ba ormal Serigne Fall parce que à part Serigne Moustapha Mbacké boo génnee li sëñ Fall def si yoonu murit ah wax dëgg bu dee bant bu dee mbaar la vraiment kon est-ce que seng yi du waaj sëñ Fall keneen la comprendre ngi mu la mais yow nga ñëw di ko def di daanu daanu lu xaw ma da ngay say xam nga dafa aalu. non da ma déglu rek bu aalu bu doon aalu dëgg gëm sëñ Fallou day bàyyi xeesal. gëm na sëñ Fallou nag bëgg na koy itam. sa waay xam la bu dee da nga ko tapet nga arrêté wax bi. non tapetu ko mais li ma gis laay wax. non yow yaa ngi ni lu tax lu tax di wuuloo lu tax di wuuloo. maa préféré maintenir sama. waaw yaa pare loolu waaw dama ni Serigne Fallou ak xeesal est-ce que ànd na. ah loolu moom ku nekk daal ak. kon doo jël miig yow mii di ko défendre. dama ni xaaral ma wala non paam bi waa xaaral bëgg na sëñ Fallou noo waaye man kan moo la wax bëgg ko mhm. kenn ku nekk ak ni muy bëggee sëñ Fallou mais bu dee nii la ñuy bëggee sëñ Fallou maa la bëgg jaraloo ma jóg du dëgg bu ñëpp defee ni mu def sëñ Fallou dina gis kenn mais su ma la déggee da nga ne dafa waroon dem màggale ji Touba mais tey am na ñoo xam ne ñi ngi ci koñam bëgg nañ màggali mënuñoo dem tey su defee ay bernde nii nit ñi nga xam ne mënuñoo joti Touba ñu ñëw foofu màggal mu bernde di tibbal waa ah boo defee bernde borom ñaari tur a koy togg borom ñaari tur ah, lan baxal misaal mbay doon togg lijjantiwuma loolu xam nga yow yaa ngi nii ñi fa nekk bëri na yaa fi tudd turam kon yaa xam nga ni borom ñaari tur la non yaa ko tudd yow yaa ko tudd ah waa déedéet bul daw res waaye dama ne waaye dama ne xam nga lan la xam nga femme bi moom yéen a tooñ seen bopp parce que mënul togg concours togg mu jël avant ndaare xam na ni bu boo toogee ba ay góor di la toogal tàngal ndox rek ndékki nay na ko si boppam bu ñu géeyee meewu 400 lay jënd yaa ngi dégg yor pain au lait amul jot liggéey bee ko tënk waa yow mii da ngay xuloo si wala da may laaj ah mais dañuy waxtaan non da da nga may déglu da nga xam nga bi ma doon wax da toog di demal demal demal yaa ngi dégg mhm. bu may wax ay fond yu gudd ay daal yi camembert da nga toog di seetaan estatil wala ma tourné si yow mii bu dee yow yaa fi nekk estatil na xam lu ma la wax mhm. waaw bu dee yéen da ngeen ko ragal parce que moom ay deux cent cinquante mille la yor di leen ko jox ngeen wër di ko waxal loolu mooy wax bi non da da nga ma déglu rek xam nga ku ko wax ma wax la dara moom du dara mais dafa dem fekk ñu xam ne dara lañ mu tuub leen ñooñu wër di ko waxal daraal ko xeesal eh, laay jaay est-ce que loolu doy na doy na pour luy identifier nit alhamdulilah ba lekku ma si mbaxal bi isaab ba maa ngi sant wax dëgg yàlla sant sant bay fecc di kaddi kaddi ah mais ñooñu non yéen da ngeen di fontu yéen da ngeen di xoola ni falkalooru diine amee noonu la falkalooru saytaane amee jàng ji leen diine yaa ngi may dégg mhm. Mhm. xoola ni wëliyu saytaane mu ne dox wàllu yu yàlla mu nee dox si kaw ndox mi noon la wëliyu saytaane mu nee dox si kaw ndox mi mhm. ñun ñëpp ay jullit lañ te yonente dafa mujjee yàlla ne ko dama la yónni yónni sa xeet yi ñun ñëpp ay yónnante lañ est-ce que xam nga l'islam diinay fàttalante la mais kuñ fàttali nga mer mais lan la yow lii la rek muy rabaj rabaj mel ni biram baf la baj géwalu alaxira chaque jour mu génn naan ma yaay taawu aar ak tekki woo dara foo tojog boo génnee ma génn ak affaire yooyu man moom man génn leen tew ma moom xam nga lu may wax ngeen fexe xeesal bi muy diwoo mu jaay leen ko ñii xeesal voilà bu la waxee dëgg si Europe bi yëpp daraleetu fa yi mu yóbbu yëpp gars yi duñ ko jël rabaj rabaj yi la desee rabaj rabaj rabaj rabaj rabaj rabaj mbeb mbeb mbeb xam nga wax ba bokk yaa ngi dégg loolu dong la dese xam nga Sénégal moom dañoo tiit politiciens yeeg ñii dañ leen di nax yéen bañ na ko politiciens yi xam nga fan lañ leen jàpp tey boo demoon daral boo amul quarante mille cent mille doo am xar deux mille francs nga jël nit solal ko mbubu muy tàccu ba ngoon kee xeesal bi day ñëw gis leen tuux la benn cinquante mille ngay wër di mbapp mbappi mu jënd sa gémmañ man kenn du ma jënd ma ne ah, maa ngi bi ma dalee wax ba léegi kan moo kan laay waxal taxal fële Ramadaan waalee ma fa fekk du dëgg te dangeen gis léeg buñ suñ gaa yi deful lu jaadu da ngeen gis may génn di dal seen kaw kon man sama wax waru ko touché moom ba muy génn di naan daf may laay fal man original tubéy laay sol am sponsor nag di sol néegu dàll laa yor non doo ma déglu néegu dàll laa yor xam naa ñenn ñu nekk si suuf di ko naan wax ko lii femme bi wax boobu muy wax dafa am ku nekk ci biir di ko wax wax ko lii mais kooku ñemewul xam nga nañ ko sot soo déggee nit ku koy wax ñemewul te femme bi jigéen la moo tax mu ngi noonu daal mais bu fekkoon góoram yooyu noonu ñoo nangoo dindi seen sër yi sol tubay ci lay xam maay kan amul problème. mais Jimbori ñun foog nañ bi affaire la nii nii rek mais mais gën na xóot ko foogee woon nag de. non man daal dama toog dégg ko nit ñi di ma envoyé ay vidéo lu mu def taf ma naan ma génn lak yaay taawu aar ak lu ne jiyee nga ko tekki woo dara loo tekkee ku la àbb ak ku la xam nga moom waxam yooyu nga xam ni wax la yu muy dajale di ko wax nii waxu dof yaa ngi dégg ànd ak sëñ Bada moomu boppam bi mel ne ndaalu dëmm yaa ngi dégg yow sëñ Bada boo génnee si moom audio jàmbur yi muy teg lan mooy des ci Bada dafa am xam-xam amul xam-xamu showbiz ñun bataa caméra bataa lañ commencé biñ koy bi may jé boobu jaar danga juddu bi ma amul sikkim laa jé ba am sikkim man du ma du ma arti como como yii de xëyu ma xëy rek internet neex ma ñëw ci internet dama topp aar ah lu ma dal nag aar moo ma ko teg ak bëgg bëggal suma réew su fekkee moom aw ma dara lu ma dal sama réew moo ma ko moo ma ko teg parce que dama daan gis rek ay nit di ko def mu neex ma ma ñëw tamit di bëggal askan bi yàgg joué aw ma si loolu dong la askan bi kese ñoo ma sonal ba moom mu ñëw nee na tekki na fi dara bitigu xeesal dafay lool mooy tekki bu xëy ndékki rek añ reer am boo lebee banque ba ñu lebal la nga ni yor nga am na ñu bër yoruñ tous banque boo fa amee compte boo lebee cinquante millions ñu lebal loolu dong la dalalee xelam yow mi gëmul sa bopp mu ñëw teg la xam nga seetaat leen ñooñu quoi ba pare nguur gi waru leen bàyyi ñooñu di live xanaa am loo xeesalkat jaaykatu xeesal ah ak jaaykatu yàmbaa lañ war a yamale parce que kii day yàq kii di yàq tey xeesal boo ko arrêté woon cancer day jeex dootul am dañuy jambu rek di jox gaay nii diw naa xees rek xeesal natt la saa boo teg dootoo teggi nattu dof la waxal rek ba pare yonent bi jamutuñ la fi bàyyi araam na rocc ba mu set ak kii roccil nit ñi kii yokk kii kiy yokkul nee na yàlla dëddale na leen yërmandeem ëllëg yow waroo wax danga nga war a laaxatu mais ngay génn jàpp moro góor comme yow sa grand am nga grand wala papa wala dara naan sa fooy gudd sa daal yu camembert nii naa affaire yooyu man duma sol sax yére bu salte man duma ma salte am na ñuy nekk si internet bi naan man damay tux yamba damay naan sàngara man du ma tux du ma naan sàngara du ma def dara. Mm. leer na sàmba c'est que léeg-léeg suñ ma waxee dara ma gis ni kii li mu def nii mun na yàq ci dëkk bi dara loolu moo may merloo ba sama bët yi xonk cur balaa maa dugg ci balaa maa def émission bi émission personnage la bu ñu nettalee rek da ngay dugg ci affaire bi loolu la mais man ñuy wax damay tuxu yàmba naan day naan sàngara génn di wax tarararar xam nga ñooñu xamuñu ma man mm. sàngara musuma ko ñam du tuxu yàmba dugguma si yooyu waxuma nag ku koy tux dangaa bon ke am na ki koy tux dafa tànn suwaa boobu man man ma tànn suwaawu bañ a def loolu wax dëgg yàlla waaw loolu la quoi macha allah euh, daje bi amoon na solo lool mënul ñàkk nag parce que suñu grand suñu taxawee waxtaan échange bi foog mu mel noonu te foog mu demee noonu mais lu mu mënti doom rek suñu grand nga waaw ñu am cër boo xam ne ak respect boo xam ne nii delloo nañ la ko lool. waaw sunu xarit nga sunu lépp nga. non wax naa ko sax yow mii ak moom mii ak. Samba xam nga toujours Samba. xam nga àndi xale kese baaxul àndi mag kese baaxul. Mhm. Euh, lu mag yor bu gesoo gisul xale la mu yor day naax saay gisoo moom saa bu ma woowee ma ñëw laaj ko. dama daan jouer théâtre woo ko ne ko yow yaa may defal euh, acteur bi fajar laa koy woo mu dagg soxlaam ñëw léeg-léeg ma fanaan loo ko fa. mu naa ah, ma damay liggéey mais loolu dama ko kay fay. Mhm. su ma woowee rek ma ñëw. Mhm. su débat et puis yéen tamit neex ngeen a waxal parce que sometimes nit seet si ma te du dégg li may wax parce que li may wax neexut a dégg. dëgg la yéen yéen a ngi dégg li may wax man fi ma toog nii sax xam naa ni émission bi mi ngi tegu ci yoon. Mhm. parce que léeg nit ñëw daf may rabaj rabaj am laaj la laaj amet day ñëw fii di rabaj rabaj am na ñu may ñëw fii di rabaj rabajee quoi di ma dugal fii yeneen gaam. xam nga am na ñu may wax lu ma nakari sax xam nga di ñëw di may wax ni xanaa yow alali waali nga alalu lii alalu laa xam nga waali man grand frère am laa du dëgg. Mhm. wax dëgg yàlla waaw man xam nga man wariwuma quoi ba pare man sama size laay toog. doo leen ma gis sax may lambar lambari yi lëjal ko yooyu non jamais mosu leen ko gis damay toog rek benn côté mais wax dëgg yàlla ñun daf ñu fekk ñuy fan sa papaam daal. wax dëgg loolu moo boole daal moom daal moo. te fu mu la seen day ñëw directement ci yow et puis ñun sekk doon taf affaire am yooyu gars yi di ko dajji noonu gars di ko dajji bu fekkoon heure bii la ko ko daj ñu daj sa gat loolu la quoi. jërëjëf grand bi amoon nañ mbégte loolu ak euh, ak yow xanaa ma jox maam Diarra rek mu tëj émission bi. waaw waaw jërëjëf nga nga tàggatoo. jërëjëf waaw waaw dañ koy bàyyi mu tàggoo moom tam gërëm ñi mu bëgg a gërëm ñëpp su ko defee. non maa ngi gërëm fi ngeen ma fekk nii rek. one one shop kii dama yàgg ak moom presque magam mu magam Maxu Mandela dafa ji si sama carrière lu bari parce que benn bis Maxu moo ñëw benn euh, site site bu ndaw la fekk ma fa ñooñu di ma defaloo émission Maxu Mandela après mu ne mu toog seetaan ma mu ne leen mais kii du pour fii Maxu moo njëkk ak comprendre lu nekk si man mu jël ma yóbbu ma sitam ma fay def ay émission yaa ngi dégg ma fay def ay émission ba tey mu jàpp si nag di wax defal lii defal lii xam nga dugg bi léeg-léeg dugg bi bu baaxul mu ne ma sa dugg yi baaxul dugg yi dafa loowu dugg yi dafa nooy xam nga may xam dugg yi parce que wax euh, wax ak way ñoo yem wax buñ suukar la waali ni mu nàmpee olof noonu nga ko nàmpe lu tax mu way jaay la ko daf ko suukar wax bii tamit dañ koy suukar mais tey boo bu ma nekkee si dëkk bi ñu may tëkkaleeg ay ñoom sëñ bada ay dof yooyu xam nga bu yàggee man damay découragé ak fi ma jaar joué lu bëri joué fesman bi joué lépp xam nga kii dof boobu noonu mel ni biram mbaf la baj jëwalu alaaxira ratatatatat xeesal yu nëb yi xam nga génn moom tamit lu ko neex mu wax naan saa boo génnee ma génn saa boo génn waaw am na sax fi ma xamee ne du waxkatu dëgg benn affaire bu ndaw la génnee ni lii laal daan jox sa plateau bi ma la ko géjee jox si nga mel ne dàngin loolu amul problème dàngin baax na amul problème mais daangin bi du borom ñaar tur de oui wasalaam yal na yàlla defal leen jàmm. mu ngi noonu mbokk yi ko déggandoo comme ni mu ko waxee moom mooy suñu grand suñu xarit ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci saa su ne yombal gi nga xamante ne mi ngi ñuy yombal suñu jëflante ak moom ñu kontaan ci eh, loolu itam waaye gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa one comme ni mu ko waxee muy boutique boo xamante ne boutique prêt à porter la am na lépp am na yére am na jiin am na daal am na lépp loo xamante ne nit da koy soxla rek pour être parfait macha allah waaw macha allah euh, lépp rek nekk fi nga hmm. xamante ne moom ah. mooy Caaroy Azur muy xale yoo xam ne am jom ñoo xam dañoo teel a xam lan mooy entrepreneuriat waaye ñàkkatee de la ñuy dundee su ko defee mbokk yi ñu jox leen rendez-vous très ci beneen gox ak keneen koo xamante ne dañuy ñëw ak moom yeneen euh, jotaay d'ici là wooy leen di topp Médina ci ay programme am euh, partager abonné liker waaye bu leen fàtte sànni li nga xamante ne moom mooy seen point de vue ci commentaire yi su ko defee ñu waxtaanee ko waaye rek gërëm Masamba allah mi nga xamante ne moom mooy l'homme aux douze métiers suñu grand na doon na ko joué loo théâtre macha allah def na lépp xalif général kullu caméraman ñu ngi koy bégee Baye Zal jërë ngeen jëf